jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 yi ñu suivre ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar <coughs> di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di ñaan réew mi du Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm di nuyu kilifa diine kilifa aada yi tey nag ñu am mbégte ci dalal koo xam ne kenn du ko présenté ci réew mi mu du suñu yaay vraiment bàjjan euh, tey moom lañ dalal fa seeni waxtaan ak moom mu nekk fii ci cité Fadia en face lycée bi dañ lay bàyyi nga nuyoog ñii di la seetaan asalaamaaleykum maa ngi ziare Sénégal maa ngi ziare kilifa aada yi kilifa diine yi di ziyaare ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér. amiin di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbàkke sama sëriñ yàlla na fi yàgg lool te wér. amiin waa di ñaan yàlla wis ndox mu sedd ci réew mi. amiin defal xale yi ñoom ñëpp jàmm ak salaam. Mm-hmm. Uh, yaay booy fi may njëkkee tey mu di procès Ousmane Sonko. Mm. Uh, dem wuyu ji usmaan Sonko uh, en tant que seetkat ban jàngat nga ci am. waa dama Ousmane Sonko bi muy dem di wuy ji tey nag ci sama gis-gis man liñ ma woon mooy jàmm rek mooy xew. Mhm. waa jàmm rek mooy xew ci réew mi. Mhm. waaw. Mhm. li ma bëgg daal mooy ñëpp daal ci li ñu war a def na ñëpp tey. bu ñëpp tey rek jàmm dina am ci réew mi. waaw. waaw tey ñu ngi jëm euh, weekend boo xamante ni làmb da ci am mu di combat Papa Sow ak Siteu euh, naka nga gisee làmb jooju. waa làmb Papa Sow ak Siteu nag sita sama doom la Papa Sow sama doom la. waaye ci gis-gis liñ ma woon mooy. Mhm. làmb ji dina tàng lool te metti mhm. xale yi bu ñu àndul ak dal dina am agression dina am coow. Mhm. dina metti lool te tàng jir. waa dina metti te tàng lool nag. waaw tey ma ñëw ci li nga xamante ni moo di ci wàllu liggéey bi. ci wàllu seet laay njëkkee nit ki euh, ki nga xam ne dafa ñëw di sàkku ci yow pour nga ñaanal ko. Euh, da nga ko war a ñaanal doo koo seetal wala da nga koy seetal ba pare doo koo ñaanal. déedéet ci li nga xamante ne moom la ma yàlla won mhm. doomu aadama bu ñëwee ne la ñaanal ma. Mhm. foog nga xam lan moo waral nga di ko ñaanal. Mhm. kon doomu aadama boobu bu la sant ñaan balaa ma nga koy ñaanal da ko war a seetal ba xam gàllankooram fu mu féete ak lu tax muy ñaanlu ak li ko dal fu mu jóge mm-hmm. nga soog a xam bunt yi nga war a am pour ñaanal ko mm-hmm. waaw mel ni da ngay ñaanee ci anam bi nga xam ne mooy pettaaw ban at nga commencé yëngu ci wàllu pettaaw waa pettaaw nag ba ma juddoo ba am 12 ans xam-xàmmee mm-hmm. laa daan tëdd ba guddi ñu tegal ma layu bi lépp loo xam ne maa ngi koy wax nit ci pettaaw dafa fekk ne dañ ma dama daan jóg toog ci gént gi ñu di ma won lii mooy lii lii mooy lii. Mm-hmm. lépp luñ ma mos a won nag ci petaaw yi. Mm-hmm. su ma xëyee wax sama yaay lii lañ ma doon wax démb loolu day am. Mm-hmm. waa dara du ci deñ loolu laay xamaliku mu di ma dal di ma dal di ma dal ba ma màgg lu ma mos a wax sama yaay nag dara du ci teggeeku. kon mu nekk loo xam ne dama ko donn ci samay maam du lu ma jàng lu ma juddu ñu jox ma ko la. waaw. tey ñi nga xamante ni dañoo yor ay pertaaw nga xam ne léegi ku dugg rek dem jënd sa pertaaw di teg euh, est-ce bala nga cee dugg da nga ko war a jàngat xool ko xam lii lan la wala da ngay tëb tëb rek yor sa pertaaw di wax. waaw pertaaw nag boo ko yoree rek pour xool la neex nga di ko wax rek munoo ci sax. Mhm. di nga ko ba. Mhm. pertaaw dafa doon loo xam ne da nga koy judduwaale. Mhm. doon ko ci say maam sax ci. di ko def te dara du la ko dindiloo mhm. ndax man xale yi ma jur ba ñu juddoo dañ ma fekk may seet kon sama seet bi am na ñaar fukki at ba tegal mhm. te ba ñu juddoo dañoo judd xamaliku gis ma ci pettaaw mhm. te ba jonni yàlla tey jii ma ko man ba may fàttaliku deux cent francs laa daan seete dem bay seete téeméer dem ba commencé lu ma wax nit mu gis ko ñu may sànnil ay dix mille bu ma tëddee guddi ñu may dóor won ma âge bii ma tollu ne ma ci tolloo ci laay jël dix mille cinq mille mille ca laa arrêté woon di jël loolu ba jamono yi may seete dix mille. Mhm. cinq mille trois mille. Mhm. waaw mu mel ni ci sa wàllu liggéey yamoo dong ci seet ñu bari des fois dañu am jafe-jafe cat nga leen di dimbali ci wàllu càngat. waa loolu am na. Mhm. wàllu cat wàllu liggéey bu bon wàllu kort lépp dama koy joxe te lépp lu ma ci joxe nag dañ ma ko won damay tëdd ba guddi ñu yóbbu ma ci àll bi ci gént na ma garab bii lii lay faj. garab bii lii lay faj garab bii lii lay faj. soo ko waree dindi nii nga koy dindee pour mu jëriñ doomu aadama yi jëriñ la jëriñ sa njaboot. Mhm. kon man meer ba Badiane lépp lu may jox nit rek du lu may toog. di ko wut fii lu may wuti ci àll bi la nekk luñ ma won mhm. su ma xëyee na xale li garab sàngam bii lañ ma won mhm. dinaa génn dem wuti ko mhm. su ma ko wutee maa koy defaral sama bopp joxe ko itil ñu ñuy utiliser ko mu jëriñ leen te daf may jariñ man mi ak sama njaboot ñu gis ni jamono ji xale yu bari ñu ngi am jafe-jafe yu ubbeeku maanaam seen wërsëg tëju mu jaral leen ñuy jaar ci gaal yi te gis naa ci ñoo xamante ni tey dimbali nga leen ba tey jàpp nañ ni sax Sénégal moo dàqu Europe ci wàllu wërsëg sant yàlla bu baax. nit dina ñëw diis ma dara dinaa ko ne da ngay sangu. ci kaw ma seetal la ba pare. sangu ba nag duma la obligé pour man maa lay sangat. dama la naan da ngay sangu. soo ma santee nag la ma xam pour defal la ko su ma la ko defalee doo ci am rëccu moo xam da ngay tukki. moo xam da nga toog fii tëju. moo xam da ngay feebar foo toll. te doo xam li lay feebar lan la. Mhm. waaw. Mhm. ñu gis tamit jamono ji ñu bari di xaw a am ay jafe-jafe wàllu rab ñu naan malaise la ñi naan malaise te rab bari ñoo xam ne sonal na leen te jàpp koo ci mës a dimbali rek mu ngi dox soxlaam. waaw parce que rab dafa doon loo xam ne doomu aadama bu la wax ne la diw mii damay dindi ay rabam mu tàggali moom loolu mënul ne. Mhm. mais rab mun nañ la defal li nga xamante ne dina la may jàmm. parce que rab dina la def nga dëkk ak ay nit saa boo yeewoo. am ak ñoom problème te duñ la def dara. Mhm. mu di la merloo. Mhm. muy sa jëkkër muy sa yaay muy ñi nga bokkal ndey ak mhm. bu ñu la defalee lañ la war a defalal. soo di nga am ak ñooñu jàmm dina la bàyyee xañ sa àdduna. Mm-hmm. te di nga am jàmm mais du la ba de mm-hmm. mais dina la bàyyee sonal. Mm-hmm. bàyyi doomu aadama yi mu lay jaxaseel. bàyyi sonal bi mu lay sonal ci sa liggéeyukaay wala dëkkuwaay. waaw. mu mel ni seet bi ngay seet yamul ci nit ki ñëw rek nga seetal ko tey nit ki dina dem war a dëkk fenn wala war a ubbi fenn place wala entreprise déplacé la nga ñëw seetal ko place bi wax ko sarax yi ak sarax yi nga ci war a génnee. waaw man mère Badiane nag képp koo xamante ne doyloo nga ci lépp loo mën a nekk boo boo ko bëggee def soit yow mi boo amoon entreprise war ma koo seetloo. Mhm. soxlawu ma nga tuddal ma turi entreprise bi. Mhm. dama bëgg nga jox ma sa tur ne man dama bëgg nga seetal ma. Mhm. dafa am ci lu ma jublu xoolal ma ko. dinaa la génneel ci li nga jublu. wax la lii nga war a def. lii mooy sarax ba. te incha allah rabi danga ma naan effectivement loolu moo ma tax a jóg. waaw ñu gis ni tamit euh, daanaka ndaw ñu bari ñu ngi am ay jafe-jafe ci wàllu këyit yow nag. anam bi nga ciy seetee man daf ma yéem parce que yemoo ci seetal nit kayit pour mu dem tukki ki nga xam ne sax day xëccoo kër wala ki nga xam ne dafa am problème mu papier dégg naa képp koo ci mës a dimbali jotaat na ay kayitam ak képp koo xam ne bëgg na tukki aussi tamit. waaw sant yàlla bu baax nit dina ñëw seet si ma diis ma problème mu tukki. Mhm. bu ma la xoolalee beneen la tukki bee la tax a jóg bu ma la génneelee sarax jox la li ma lay jox am na ci ñoo xam ne une semaine. Mhm. am na ci ñoo xam ne un mois nga ne ma dem naa am na ñoo xam ne dañuy yegg woo ma ne ma dem naa. bëri na lool macha allah. Mhm. bëri na lool. Mhm. waaw. Mhm. moo nekkoon sunu invité tey mu di maire Badiane nekk fii ci Cité Fadia boo ñëwee ba ci lycée bi rek boo wootee ci numéro yooyu ñu leen jox ci service commercial bi incha allahu rabbi yàlla dina leen ci dimbali numéro téléphone mu ngi noonu di daw ci service commercial bi boo ñëwee ba Cité Fadia ci lycée boo wootee rek di nga euh, seet gi euh, seet gi nit ki da ngay tëdd guddi di ko seetal wala day ñëw jàkkaarloog yow koy seetal. foo mun a nekk international. foo munta nekk ci àdduna bi. ak fu mu sori sori sori. soo ma wooyee ne ma mère Badiane dama bëgg nga xoolal ma. te loolu moo am sax loolu laay defanteeg nit ñi. nga jox ma sa tur jox ma sa tur yaay laa soxla. bu ma wax li ngay seetlu parce day mel ni li may liggéey mënu ko. Mhm. ma génneel la li la tax a jóg ak li nga doon seetlu ak ku mu mun a doon. soo paree nga di nga ma ne carrément mosuma ci am defet ne ma lii moo ma tax a jóg jaaxal nga ma. kon nit ki di ko seetal te doo jàkkaarloo ak moom. moo ëpp. moo ëpp. Mm-hmm. képp ku may seetal foo mun ta nekk ci àdduna bu ma wax dara looy seetlu. Mm-hmm. sa tur ak sa tur yaay laa soxla ma génne la lépp. mësuma mm-hmm. ci am gàcce. wax la li la tax a jog wax la li la jot wax la lan ban problème nga am. waaw te mu mel ni sax ñaan gi sangu gi ak takk gi am na solo waaye seet mooy secret bi nga xamante ni mooy léppi ñaan. waaw seet mooy premier bi. Mhm. seet mooy premier bi parce que bu ma la bëggee wax bi néeg bi boo ko tëjee ma ne la lii moo ne ci biir te dugguma fi. Mhm. maa ngi tâtonné di wax lu ma neex. Mhm. waaye bu ma la xoolalee dinaa xam li ne ci yow. xool luñ la war a defal ma ne la lii da ko war a def. du ma ne kaay ma defal la de. parce que wóolu naa samay garab man ba Badiane. xam naa ne samay garab du lu may yor. muy des ci samay loxo. kon nag dama la naan da nga war a sangu li ak li ak lii moo nekk ci yow. boo ma santee nag. doo rëccu dara loo ci doon duggee. Mhm. boo ma santul it mhm. dinaa la bàyyi nga dem. Mhm. mais lu yàgg yàgg di nga ma woowaat ne ma sangu naa. mais ma soo ma nee sangu naa te gisuma ne am na ñu ma sangat dinaa la ne carrément ñi lay sangat mun nañ. mais liggéey bi nekk ci yow. dafa am liggéey boo xam ne boo ko tojee ci nit ki. Mm-hmm. warul dellu si da ko war a defal lu tax liggéey bi du ñëwaat. Mm-hmm. mais su dee dama lay sang ba pare toj liggéey bi te mënu ma garanti ne liggéey bi du ñëwaat ci yow. Mm-hmm. da nga naan sëriñ bi mënul mun na de. mais mënu a jox lu tax liggéey bi du ñëwaat te nit ñi bu ñu jógee rek dañuy jogaat. voilà. tey euh, jamono ji xale yu jigéen yi bari ñoo may message nii sax di ma fàttali question boobu dañuy am jafe-jafey sëy am jafe-jafey borom kër képp koo xam ne tey bëgg na am borom kër bu ñëwee ci mère Badiane yaakaar naa na ko mën a dimbali man mère Badiane képp koo xamante ne doyloo nga ma maa ngi fii ci cité Fadia. Mhm. ñëpp xam nañ ma mënuma mhm. réer kenn fii. Mhm. international ñëpp a may dégg. problème boo mën a am ci wàll sëy rawaan a koy def wala cat soo ñëwee dinaa la jox fasu rawaan bi soo ko takkee mënul mot une semaine wala deux semaine te amoo loo gënt ci moom yenn saa yi nga gënt mu toxu dana naan carrément toxu naa ci keneen yenn saa yi nga gënt mun ne la carrément bàyyi naa la. Mhm. te du ñëwaat ci yow. Mhm. su ma la joxee fas bi ba pare dinaa la jox li ngay sangoo. bu mhm. soobee yàlla ñi ma seet sangat ñu ne ma say nañ. wala rab bi bàyyi na ma gént naa ci nàngam du fi jeex du xàcc xam naa ci dara. waaw. tey ñi nga xaman tey maanaam euh, sarax sarax sarax ban ban effet lay def ci doomu aadama. sarax dina fànq. yàlla moom dee moom dara mënu ko tere am mais dina guddal fan. dina fànq dee mu tardé. te sarax dana la ubbi. waaw dina la aar. waaw sarax moom dara gën ko. lépp sarax a jiitu. waaw. mais ci wàllu sangat yi fii sa kër ngay recevoir fi ngay sange wala nga am feneen fooy recevoir di fa sangaate. non sama kër boo ñëwee bugg a sangu nga sangu. mais fokk ma jox la loo yóbbu. waaw mhm. dinaa sangat ci kër gi. ñi sori dama leen di yónnee. man li may yónnee ci GP kenn xamul ni mu toll. Mhm. parce que nit ñi ñi xam samay garab ñu ma koy laaj bu baax a baax a baax. Mhm. man mère Badiane. Mhm. fii ma dëkk tamit xam nañ ma Cité Fadia. ñi ma ku fi xamul mère Badiane amul de. waaw ku ko fi xamul defe naa maa ngi bëgg a def vingt ans Cité Fadia. te ku ma xam ci pettaw nga ma xam. waaw nit ñaa ngi ñëw fii tamit. di jël si ay garab di yóbbu di sangu parce que sangat bi. foog nga yóbbu. parce que da ci am boo xam ne buy toj liggéey la. foog nga sangoo ko lu tolloog neuf jours. Mhm. da ci xam boo xamante ne pour cat yi la. Mhm. waaw gàllankoor yi pexe noon yi. Mhm. foog nga yóbbu ko di ci sangu tamit. semaine bu jot quatre jours. waaw yor naa li nga xamante ne. da koy boole café wala dute. pour lekk bu mu mës a fekk sa biir moo xam nit ku bon moo la ko jox. moo xam feebar bu nekk sa biir. di nga ko dem toilette parce que nit ki boo koy defar pour mu yéeg fu kawe. weer tam ci la. waaw. mooy moo tax lépp laay boole ndax wéral mooy lépp. Mhm. fi may jeexalee mooy wàllu kort dégg naa wax dëgg yàlla amoo ci moroom. waaw kortu moom. Mhm. parce que luy yàq àdduna yi doomu aadama la. Mhm. moo tax am naa garab gi nga xam ne boo ko sangoo. ku lay def na la def jàmm ndax bu la kortee dina dañ te dina dellu ci ki ko defoon. waaw. Euh, mën nga ñu indil ay leeral ci garab yi nekk ci leket gi. benn bu ci nekk ban lan lay def ci doomu aadama. waaw garab bu ñuul kukku bi. Euh, dina dindi lekk bu bon ñam bu bon ci biir. mooy garab bu ñuul bi yëkkati ko téye ko yëkkati ko. garab bii. Mhm. lépp loo lekk lu bon dina ko dindi. Mhm. moo xam luñ la jox la. Mhm. moo xam feebar bu mu fekk sa biir te nit ñi wératuñu. garab bii. mag ñu njëkk ñi moom lañ daan sangoo. boo ko saxalee sa yaram. nee na biñ koy sangoo daal bu saxee sa yaram nee na ñoo daan dund cent ans. day guddal fan. waaw. garab bi mhm. pour korte la mhm. liggéey bu bon mhm. bu la nit def munoo ko sangu ba pare te woo ma wax ma say gent parce que lu ñu la daan def yëpp di nga ko gent waaw garab bii pour ubbeekaay la parce que nit ki tamit da ngay faju ba pare di ubbeeku loolu nga bëgg waaw suuraay bi pour ngelaw seytaane moo ko tax a jóg ak feebar yi ngay sentir sa yaram di diis di tayal doo mun dara mu ngi nii nga suur sa yaram waaw téere bii ngay gis ma di ko def samay pettaaw lu ko tax a jóg mooy. Mhm. téere bi buñ la liggéeyee. Mhm. képp ku ko takk buñ la liggéeyee mu dellu ci kaw. bii waaw. Mhm. man nag damay aar sama bopp. parce que façon ku nekk mooy ñëw ci man. dëgg moo tax ma di ko teg fii waaye ku ma ko jox boo ko takkee. ñaar ku lay liggéey na la liggéey jàmm. waaw. Euh, mu ngi noonu moo nekkoon sunu invité vraiment liñ naan lu duuf ci nag bi xajul ci cin bi mu di maire Badiane nekk fii ci Cité Fadia boo ñëwee ba ci lycée bi rek boo wootee ci numéro téléphone yooyu ngay gis ci écran bi dinañ la indi teg la ci yoon dama képp koo xam ne bëgg nga ñaanlu bëgg nga seetlu ñëwal fii ci maire Badiane Cité Fadia boo wootee ci numéro yooyu ngay gis dinañ la recevoir teg ci ak si allah tey lan ngay tàggatoo ak looy ñaanal dëkk bi. xanaa di ñaan yàlla yàlla wis ndox mu sedd ci réew mi. Mm-hmm. di ñaanal suñu président mm-hmm. yàlla wis ndox mu sedd ci réewam mi. Mm-hmm. di ñaanal sonk tamit ci li mu nekk nii. maa ngi ñaan yàlla wis ndox mu sedd guy. defal ko ci jàmm defal suñu président jàmm. te xam ne ku ci nekk rek yàlla tuddoon na ne li jaar-jaar yi di nga ci jaar ndax jiitu na seen juddu ñoom ñëpp. waaw alaa kulli aal mu am jiitu na seen juddu. muy Sonko coow lii muy am nii. jiitu na ju juddoom hmm. waaw hmm. suñu président tamit jaar-jaar bii muy am hmm. ci jiite réew mi lu muy nangu la ndax jiitu na juddoom kon nag yàlla ci yàlla def jàmm amin waaw amin jërë ngeen jëf mbokk yi moo nekkoon suñu invité tey di leen jox yeneen dig daje ci suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf